waaw nah, ko njël match bi xam nga sa bopp léegi la <laughs> wax ba xoolal rek dërëm yaa ngi enak, sa banaan si untuk yang naa la ñee nag bu lagi udah nggak nga bëgg a dégg tax yàlla def sax ma ni la ñoom waaye ni ma sonn dama wër a wër a wër a wër heureusement tey xam. yow Massa ji accord gi ngay Massa la. lan. yow. damaa wër a wër a wër ba sonn. marché amul dara. laa illah ak weeru koor gi. au lieu que weeru koor bi ñu war a yombal lépp defuñu ko lépp a cher lépp. weeru koor gu sell gii nga xam ne ñun ñëpp dañ cee war a jaamu yàlla même jëm dugg mi seer ko ba mu mel nii ñun ñii du ñu ay jullit sax. gis nga nii xoolal lii carotte bi. suma leena ñaata la ko jëndee do ko ñetti ñaar fuk lañ koy sa ñetti ñaar fuk li ma jëndee ko fukk juroom ni mo mo laa ko juroom am mo mënuma la gëm waaw waaw gëmoo mo waa la xam na la bëgg ma ñëm dem simmeeku defaral ma yebbil ma xol ma yaay mo nang ko xol nak te bu desee wecc do ma ci dimbali jox ma rek ma jënd ba wecc déggul li ma la ma ci lepp lañ yox nga ma wecc yow li mo la yàq wóolu wo kenn ni eh, do xam nga sama situation waaye de gëw ma la salaamaaleykum fombe ne jam ne dama ko marché yow may jam ko jëlen dugg non <laughs> ana marché deden mënul nek yow man sama jank bi ñaari junni laa ko jox ne ko na ma dem nduggali marché indi lu ma lu mel ni pepp ndugg indi lu ma ko fi mu nekk moo tax may wër a jëndi ah déedéet mère jaar wax ma lii fan nga ko jëlee li jëlee wax ci marché bi am bi ñëwee léegi nee na marché dara dara dara dara dara amu fa nee na ma ñu ngay xëccoo nee na gis nga lii avant mu koy am nee na ma dafa futteeku jël musóoram takk ci ndiggam di xëccoo di xëccoo ndugg mi am na ci ñaari jeeg yoo xam ne tuuti ñu jamante paaka ndax ndugg mi nga naan nag waa léegi mère Dia man kon di fan laa koy waxee ah man day wax dëgg yàlla xam nga yoon ni ma mel ak sama sama mi ndey nga sama lépp nga ah sama nit nga yàgg naa ak mo la amuloon xama fan la koy ya, wax wa bàjjan fo jeme nduguli fo jeme nduguli ndugg li ndugg mi ñëw ndugg mi ñëw ay bàjjan ba dangaa bëgg wàll gi ñi ràññee

waaw mère Dial nag setal man la ndugg mu rus laa ndugg am nag man dama lay arrange kon bàyyi ko oh, ah déedéet kon bàyyi bu ko bàyyi bu ko bàyyi ma jaay te jaayu ma kaani amu envie toog ko kaani lii nga ma jaay te mooy lii nii lii yow nga ma xaaral jëlal may ñaari amul de yow rek tax bu doon keneen sama xel sa xalaatu ko duma jël li ma war a ndogo di ko jaay ndaxte wax dëgg yàlla nag ci dëkk bi ci ñëpp la metti waaye yow moom sama nit nga moom bu xajee sa bàmmeel jëlal luy loolu man sama bàmmeel lopp ñaari junni xam nga ma liggéeyal naa yàlla lopp ñaari junni a ah! ah, jongu ma nga amul dara ba léegi yéen seen lekkat yi ngeen nar a ñibbee ñu yëru dara dara dara may leen ma nyata? ñaata. 100 am? nyata f amul. ñaata moo am. bii 500 la. bii 1000 meer. mais suñu njëg seer na de. ndugg amul dafa seer fukki dërëm amul. ana dala waay waay lii dala dëppoo. 1000F. ah téeméer. xalaatuma ko de. nga bàyyi. boo dee bu nan la dalal dëpp. moom laa di may ne lii laa lay jaay. waaw mais xanaa xool si wéeru koor bi nekk nag. bu fekkee da ngaa ñëw pour aku ngox mu fekkee da ngaa ñëw pour xas ma ngox. mais bon nga de. ak wax bon nga yow. da ngaa bon. bon ba trop meer. am téeméer ah. 1500 la la jaayee boy ñoom ñaar ko waa am téeméer waa jël téeméer ah am ma mel na ñoom téeméer waa jël 400 ba tey te daa amul ci nawet nañ ne am 200 gisoo pataas ni mu toll juróomi téeméer am maa la may 300 ci 800 lay jaay ànd ko le maa ngi ñëw ñu ma gaaw kaay kaay dawal nduggi waxtaan nduggi waat dama rek nduggi waatam xaaral ma doon la sax am dawal nduggi Lọ́kùn mi lẹ́wọ̀ ẹ́. Wọ́n sábà yẹn. Yẹ́ ẹ́ gọ́lẹ̀. Yẹ́ ẹ́. Yẹ́ ẹ́. Naam. Ayọ̀. Yẹ́. Nọ, kẹ́kẹ́ bí lẹ́nu kan. Yẹ́ o. Mo ta fún yẹn náà. Àlọ́ wa ń gbìyànjú. Ọmọ náà.

dul xaaj may wax pareeguma yaay am ñeneen ñaar ñu yaay ñaari jeeg yaay may gita xaaj ma la sama commerce commerce si dépense dama ne waaw waaw ndax ci weeru koor lañ nekk hausse des prix waaw prix yëpp dafa flambé wu prix bi dafa flambé wu on accéléré on accélère c'est le mot on accélère tey de moom tey jii dinañ doon émerger rek accéléré nga sa dem fa. nañ dem ndax soo buñ ko déggee dem jëm jëm. jibi tëgoo ko jibi tëgoo ko teewoon fa. jibi. eh sama xarit sama xarit. yow eh. gis nga nii xoolal lii dañ ma wàccee téeméer dërëm mi ngi nii xoolal lii téeméer mi ma wàccee xoolal lii am waaye nañu muñ rek